salaamaaleykum gars yi boo ñaa la maa ngi nuyu ñëpp di jox ñëpp rendez-vous incha allah mercredi à partir de huit heures di arène nationale bi gars yi ñëw indaale seen carte nationale ñu vacciné wu ñu jéem a maximum de vaccination état bi aussi nga jàpp mu jàppale làmb xam nga waxtaan ak promoteurs yi jéem a jënd droit tere yi gars yi mën a continuer seen activité comme ni ko monde entier yëpp sportif yëpp ci defee ñu ngi lancé appel boobu daal ah waa jàmm ci ñëpp gars bu jaayee. bi moo parce que tey loolu la ñu fekk instant bi ñuy jëlañ jëlañ. waaw waaw comme affaire bee ko yàq. ñu ñëw ñàkk ñu jël affaire ak bopp rek ñu ñëw ñàkk. voilà di lancer message que citoyen yëpp dañu ñëw def comme ñun. waaw dañuy ñëw ñàkk si xeex xeex xeex euh, feebar bi. voilà ñu gagnandoo ko ensemble. incha allah ay bis la. ay da mu dal. ah. xalifa bi ñàkk na jantam. waaw macha allah. li ñëpp def nañ. te ji man ñëw naa sama njaboot yëpp ñëw nañ. équipe bi yëpp a ngi ñëw nañ ñëpp ñëpp jàpp si. donc citoyen yëpp nañ fa def seen combat bopp. dañuy dem nag ji ñu xeexandoo xeexal bi. léegi am na loolu c'est ça jaajëf. voilà mu ngi noonu. maa ngi sa sama sa sama de vaccination. donc fépp fu ma bëgg a dem mën naa fa dem léegi ak sama cadre. asalaamaaleykum mbokk Sénégal asalaamaaleykum euh, axlu làmb man Bira seen président CNG lutte may woote waa Sénégal waa làmb pour ñu daje àllarba 4 août ci arène nationale pour que ñu mun a ñàkku en masse jéem a daan corona. woote bi nag ah daañ ci jiital promoteur de lutte yi président écurie yi manager yi euh, amateurs yi euh, fans club yi euh, entraîneurs yi mbër yi ñëpp woo nañ leen ak ñi nga xam dañuy safoo làmb yëpp ñu daje arène nationale ñëw ñu ñàkku respecté distanciation physique yi respecté digle yi mesure barrière yi ñu respecté ko à la woote boobu lañ leen di woo ñu bëgg ñu ñëw àllarba incha allah à partir de ñu ñàkku jëm a jëlee corona ci réew mi. feebar bi jéggi na doyal waaye nag nañu ànd ak dal te dem vacciné wu ci arena bi mercredi ñu ngi woo Sénégal bi gépp ak képp kuy sportif ak surtout lutteurs yi les jeunes lutteurs di wax genes bi ñëpp nañ dem ñàkk ji arena bi parce que ñàkk bi am na solo ñan ñaan yàlla nag yàlla jële fi bas bi. ci barke Sëriñ salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna jox ñëpp rendez-vous mercredi arène nationale ñëpp ñëw ñu dem pikiru ji doxal suñu làmb ji pour làmb ji ubbi nag ci yéen des muy promoteur muy amateur muy mbaru làmb muy képp koo xam ne ci monde la lutte nga bokk jóg leen ñu dem jóg jot na asalaamaaleykum asalaamaaleykum man la wuli wuli waat maa ngi woo ñëpp mercredi bii na ñëpp dem arène nationale dem vaccin néew ji ndax ñu ubbiwaat sunu lamb ji képp kuy mbër wala kuy amateur wala kuy supporter wala képp ku bëgg lamb ñu ngi lay woo mercredi ci arène nationale ngeen def ni man man vaccin naa bu ba noppi maa ngi woo mbër yi yëpp ñu dem vote. maa ngi nuyu ñëpp leen sant di leen gërëm man la docteur Ka président commission médicale bu CNG de lutte dañuy organiser suba mercredi fii ci arène nationale bi benn journée de vaccination boo xam ne dafay concerner lépp ñoo xam ne dañuy liggéey ci biir lutte muy lutteurs yi mën manager yi képp koo xam ne daal da liggéey ci biir kii bi ci biir euh, bëri bi woo nañ la fii le mercredi à partir de 9 heures. nga ñëw ñu vacciner la et que ñun ñëpp ñu mën a la santé bi nga xam ne mooy aar suñu population aar ñi nga xam ne ñoo nekk ci làmb ji ci feebar euh, dafa am xew-xew bu rëy nag boo xam ni waa làmb ñoo ko war a organiser à le CNG muy journée de vaccination le mercredi làmb rek di waneti boppam ci ni ay nationalistes lañu ay patriotes lañu. lépp loo xam ne réew mi soxla na ko làmb dina ci def partition ba mu mat sëkk incha allahu mercredi ñëpp famille làmb yëpp ñu daje ci arène nationale pour def journée de vaccination comme nag ñun Covid bi moo bëgga yàq sunu làmb ñun dinañu xeex ak Covid bi ba daan ko continuer di tëgg sunuy làmb may ñaan képp kuy mbër képp kuy supporter képp kuy sympathisant képp ku bëgg làmb dama bëggoon àllarba bii di 4 août 2021 nga dem ci arène national nga ñàkku ji te boo nu demee ba ubbi nag euh, lamb ji itam ñu fexe ku fay dem takk masque pour que nga mën a aar sa bopp aar ñi nga xamante ni ñi ñoom nga nekkal ñëpp asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum Sénégal man la Gora Ndoye président des jeunes amateurs de lutte du Sénégal waa ñu ngi woo ñëpp képp kuy amateur journée bi nga xamante ni CNG bi dañ ko organiser muy journée de vaccination foofu ci arène national di woo amateur yëpp ñëw vacciné wu di woo mbër yi di woo képp koo xamante ni yaa ngi ci axlu làmb nga ñëw vacciné wu le mercredi 4 août foofu ci arène national muy loo xamante ni dañ koy def pour xeex mbas mi jëlee ko fi pour suñu làmb ji mën a reprendre ñu reprendre activité yi maa ngi woo képp kuy dund làmb di woo amateurs yi nekk Sénégal yëpp ñu ñëw vacciné. di woote di si woo ak la làmb di si woo mbër yëpp ñu ñoo teewee ak sa vacciné ndax ñu mën a tudd suñu làmb incha allah merci. journée de sensibilisation bi CNG de lutte di organisé mercredi 4 août incha allah fële ci arène nationale ci vaccination yi ñu fas yéene sensibiliser ak lu làmb yëpp di ñaan mbër ménager supporter fans club képp ku yëg message bi rek ñu ngi la ci woo mercredi fële ñu mën a vacciné wu. bu ñu vacciné ba xeex feebar bi ñu mën a dellu suñu liggéey. jërëjëf mbokk yi ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala ñu mel ni euh, fi mu nekk nii xewal gaa ngi wàcc waaye daal euh, ñu maa ngi woo wala mënu làmb yëpp di bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom la làmb ngànk làmb te euh, suñu làmb ji gis nañ ne am na sooxe sooxe yi ci nekk yoo xam ne yi dara waralu ko dul feebar bi ñu nag ñoo ngi ñaan képp koo xam ne composant làmb nga yaa nga xam mbër mu mag wala mbër mu ndaw nga ci kàttu yàlla suba ci àllarba ji ñoo ngi ñaan ñëpp ñu daje arène nationale mën a pikiru pikir yi itam da koy def uniquement pour rek sauver suñu làmp pour làmb mën a ubbiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Pape Sarr bu Pikine maa ngi jox rendez-vous ñëpp mercredi ci arène nationale ak lu képp koo xamante tey yaa ngi ci làmb ñu ñëw dem ñàkku ji ñu ñàkku ji ndax suñu làmb ji ubbi maa ngi koy wax ñëpp képp ku nekk ci làmb bokk ci làmb di ko wax Sénégal ñu dem vacciné ji. ndax suñu làmb ji ubbi. yëpp ñu daal di def li nga xamante ne mooy vaccin bi ñu ñëpp ñu ànd daal di xeex corona bi daan ko def vaccin bi ku nekk yor sa carnet vaccin ñu mën a doxal suñu liggéey parce que tamit nekk na loo xamante ni daal wax dëgg fa yàlla comme moom mooy li nga xamante ne mooy tax ñu wéyal suñu liggéey na ñu ànd ñun ñëpp dem defi ko rek man booy fay maa ngi fa.